Euh, la Suisse normalement ñun nous avons été logique bon la premier premier passage bi quand même j'ai été suivi en deux minutes mais pratiquement beaucoup ont développé. j'ai quand même bien sûr, je de trucs. Mhm. il faut que ñu xam ne ñun on a été logique on a changé la politique au Sénégal. on a posé un nouveau paradigme politique tout le monde est est, est d'accord. gis <laughs> euh, nga euh, c'est de notre génération. ñun ñu ñu nekk comme wax na ko c'est des jeunes. qui sont responsables moi je connais Ousmane Sonko nii Dada nii Dev les autres responsabilités yi moo ko ci am dem naa ba ba am ko ci on s'est pas rencontré plus d'une ou deux fois il n'est pas moomul Pastef euh, du xaalisam la ñuy la ñuy kiyee Pastef Pastef est une vision Pastef c'est un paradigme que nous partageons tous en commun ça veut dire il fallait poser les vrais de baax di développement il fallait attaquer la monnaie il fallait attaquer suñu économie bu extraverti bi nga xam ne moomuñu ko. 10 mm. pour cent yi nga xam ne euh, nit ñi mënuñoo faju nit ñi mënuñoo lekk nit ñi mënuñoo naan loolu yëpp sax c'est pas duñ si waaye di ñëwaat xam nga luy dëgg dire que jox nañ ko ñaari yoon dëgg signifie woon ne justice amul problème. on a un système c'est le système qui pose problème te ñun si suñu programme bi wax nañ ci lu leer nan lañ mënee tëggee justice bi nga xam ne euh, suñu demee euh, nit ñi Sénégalais yi dinañ ci gis seen bopp suñuy rendre ay kii problème bi tax mu naan xale yooyu l'arbre de la démocratie doit être arrosé par le sang des martyrs maanaam dañ doon wax naan maanaam démocratie pour mu évoluer amul benn dëkk bu statique maanaam taxaw xam nga suñ nee dëkk dëkk du notion physique booy laal mhm. mais ay nit ñoo ko doxal nit ñoo nekk yàppale nekk deret euh, muy France muy état muy fépp fu ñu yegsi tey nit ñi dañ si ñàkk seeni bakkan ba demoon sa ay révolution la ñu def ba yegsi fu ñu yegsi mhm. xale yooyu ils sont pas morts pour rien mun nañ di lim benn par benn c'est des gens comme man comme keneen ak keneen qui sont sortis dans la rue qui depuis 2012 depuis le gouvernement même de Macky Sall bi muy wax man euh, j'étais pas politique à l'époque mais pour des positions de principe génn ñu ñëpp mënoon ci bàyyi bakkan mm-hmm. soo tey ñoom ñuy ànd moom ñoom Abdou Mbow tous ces gars là sooy gis image yi vous les dans des manifestations yi nga xam ne y avait de foule mais ñu respecté il faut que ñu respecté ces parents là qui sont en train de pleurer leur mort leur blessé nga xam ne ñoom sax lijjantiwuñu ko ñun lépp lu ñu am ñëpp xam nañu télé laay waxee mhm. muy ñi ñu war a prendre en charge muy blessé yi muy les passifs du ci jóg muy chemin euh, chemin chemin de la libération ñu ngi leen di wër di leen nemmeeku parce que nous avons conscience qu'ils ont ay sacrifices ultimes la def pour leur pays parce que le patriotisme affaire u deret la affaire u gëm sa dëkk la c'est des enfants yi xale yi nga xam ne li ñenn ñu bëri am si avantage amuñu ko ci des fois yow sax da am problème mu conscience yi que di de niveau de am par rapport à ces jeunes là yi nga xam ne mun na ci ci ci ci ci ci bi ñu ci nekk mais l'engagement et l'intensité de leur engagement soo doonee nit dëgg doon patriote da ngay da ngay respecter cela il faut que respecter ces jeunes là c'est pas du du du ay ñu xamul du ay ñu dof tey man sama directeur euh, sama communication ki ko yoroon conseil départemental mu ngi mu ngi mu ngi prison la jeune Abdou Karim ah. c'est un diplômé c'est un diplômé euh, un jeune très talentueux tey Pape Baba Mbow qui professeur moo jeune frère maa ko dugal politique ma nga ma nga ma nga prison mën naa ci lim di lim comme si c'est des jeunes yi nga xam ne dañoo jàngul wala dañoo xamul wala dañoo xamul fu ñu jëm il faut qu'on respecte cela Pastef c'est un état d'esprit lu ñuy def nii ñoom ils ne l'ont pas compris c'est un combat qu'on doit mener qu'on va pas abandonner ce n'est même pas contre le président Macky Sall ñun doon nekk ci en fii à l'université Gaston Berger ñuy def ma sociologie du développement lañ def da doon génn pessimiste si l'Afrique refusait le développement Axel Kabou tu étais vraiment député ah, loolu nag la ñu woon il fallait benn renaissance africaine mi nga xam ne kenn wax na ko il fallait qu'on change de paradigme ah, il faut que ce pays tout changement même réformateur bu mën a jëw même yonent yi ba ñëwee ils ont trouvé des sociétés pour ñu nangul leen dafa metti woon. Mhm. ñu pour penser que ñun dañoo waxoon ne dina yomb il faut écouter les discours de Sonko depuis le début. nous étions préparés à ça. à la prison à la mort ak leneen ak leneen il fallait s'y attendre loolu nag c'est pas fait suñu kon nag c'est un combat contre ñun ak ak ak waa Benno Bokk Yaakaar ñun c'est-à-dire ñun suñu combat ça reste large et ceux qui sont euh, mhm. am na euh, le phénix que ces jeunes là sont prêts quand même à changer ci nga Macron su demee bay oo ay jeunes naan leen ñëw leen ay damay rencontrer la jeunesse africaine ak di wax ku ne ma vous voyez parce que euh, mais parce que ils se sentent le danger. ils mmh. sentent que quand même nouveau, il y a un discours nouveau radical mm-hmm. les jeunes par rapport à leurs dirigeants par rapport à leur à leurs seen élite dañoo dañoo sax dañoo dañoo nekk ci leneen si loolu la ñu nekk gis nga euh, li ñu leen euh, bëgg a xamal. Euh, depuis le début dossier bi. benn nit sax war ëppoon dee ëpp dee si ëppoon na. parce que depuis le début amuñu lenn lu ñu mës a teg ci table bi pour les sénégalais depuis le début nag de ce dossier ah de le dossier Sonko. mais yéen a nañu dellu ci ginnaaw gis nga juge suy dem ba naan nañu dem ñu juge ab diw day fekk nga teg dara waxuñu fi ay ADN waxuñu fi leneen on finit ba ñu joxee prix ñoom ñoo ñëw ne deful dara. ana lu ñu teg ci table bi donc depuis le début si on était ñu woon sori si dossier bi ba ci am une soixantaine de morts non je hmm. termine da nga ne la suite. la suite oui. la suite c' est comme on l'a toujours euh, dit moom moo nekkoon jot temps moo génn dem nous nous sommes constants. nous sommes non gënul de yéen yéen a yéen a yéen a rompre affaire bi alliance bi. non alliance bi alliance bi. non non xam na ci xam na ci xam na ci lu bëri nag Gaoussou. non non Gaoussou xam na ci lu bëri de. xam na ci lu bëri de ah allez-y non non non Gaoussou ne dis pas ça. non non on laisse poursuivre ñu bàyyi ko allez-y allez-y. Gaoussou le sens de l'écoute c'est un pouvoir d'autodisciplinement moi je. loolu di ça je souffre à t'écouter je souffre pas à t'écouter en fait je suis discipliné mentalement pour t'écouter en fait euh, mais je souffre pas à t'écouter parce que tamit am nga droit wax sa xalaat mhm. et il y a des catégories de Sénégalais yi am peut-être li ngay wax intéressé na leen mu ngi ne ñu ngi lay ñu ngi la ciy nangu mhm. man Ousmane Sonko ma gis ko benn yoon ma gis ko ñaari yoon ma gis ko ñetti yoon c'est pas important mhm. parce que mbindeef la nit la gënuma ci ndey gënuma ci baay gënuma jàng université bi mu génnee laa génne donc euh, su ma ko xamatoon sax semblance de marque. li leen boole c'est des idées. voilà mm-hmm. li ma man loolu loolu moo ma intéressé c'est pourquoi je me suis engagé en politique autrement politique dépense dama jàng fi ma war jaa jàngi génne j'étais professeur de philosophie en Hollande ñëwuma Pastef parce que voilà Ousmane Sonko mm-hmm. je le trouve beau ou bien il est de, du sud ou du faut que ma xam ko pour am ay affinités je le connais très bien et il me connaît très bien pour ma wax la c'est une mm-hmm. manière de te dire que j'ai pas cherché à le rencontrer toutefois ah, chaque fois ay idées moo ñu doon boole donc euh, li ma doon tenté di wax Sénégalais ñu ngi l'espoir mooy dundaloo ay nit ñu nga c'est milieu tey dafa judduwaat cet espoir cet espoir aujourd'hui quand li ma li ma doon oo si nit wala li ma fekk si message en fait l'enthousiasme en fait da ni ni ni ñuy ni ñuy waxee yow mais sa waa ji sa waa ji sa waa ji non seulement les Sénégalais sont contents. Mhm. parce que gis nga nag dëkk bi les gens ne mesurent pas <coughs> l'impuissance en fait le désespoir des Sénégalais dañoo dem ba amatuñu benn yaakaar na seen conditions yi. Euh, benn sénégalais mën na ko jënd am na benn mm, nit ku ma doon wax ku am xalaat bi ma doon wax benn affaire mu ne ma est-ce que seetlu nga benn benn sénégalais yi dañoo dem ba gëm nañu ne Sénégal gii kenn ku benn benn benn soxna Sénégal jurul kenn ki nga xam ne war na mën a defar Sénégal. et en fait c'est c'est dans ça qu'on est on est mu ne ñëpp yem na ñëpp euh, ñëpp ñoo yem ak euh, Ousmane Sonko il fera comme les autres kenn gëmul ne il y a un sénégalais né capable de redresser le Sénégal di yeneen dëkk yi ñuy voyager di dem ñu am ay tram am ay métro am ay ay ay ay hôpitaux c'est du ñu ay jinne c'est des c'est ay nit nañ gis nga le pays des dragons comme on les appelle étaient comme nous il y a soupe gis nga Maghreb bii ñuy xeeb nii soo demee ay Maroc beaucoup ne sont pas partis tram yaa ngi fa ak yeneen ak yeneen commencé mel ne le terre ak le BRT qui va venir c'est un tronçon xam nga préalable dafa am ñu ko jiitu gis nga Mamadou Awa nous sommes que 17 ou 18 millions de Sénégalais avec des richesses actuellement incommensurables. Ça c'est fii ñu ngi fi wax ñu ngi ñu ngi fer ñu ngi phosphate ñu ngi pétrole ñu ngi gaz. ñu ngi ñu ngi à Diogo et un peu partout. on parle de l'or 17 millions de Sénégalais on a les meilleurs pratiquement les meilleures universités en Afrique du hmm. ay borom xam-xam en fait la question véritablement. Hmm. on a le soleil on a des terres. parce que ñun on a amuñu ay montagnes on a mm-hmm. une une, une des, des des plaines et cetera qu'est-ce qu'est-ce qu'on manque ñun sénégalais si mm-hmm. véritablement pour être véritablement au au concert des nations. Merci some nous sommes malades de nos élites. Mm-hmm. et problème boobu nag dañu war a régler et ñun dañoo jël suñu destin en main. en fait il faut qu'on règle ce problème là. dans le PASTEF j'en profite en fait pour dire. que nous avons paix nee na sànq mi ngi doon laaj ne ma ne ko euh, mu naan mu ngi tudd ay nit gis nga dañoo abandonné wul le le le le jeu politique ils ont été courageux jusqu'au bout nous avons fait face où il n'y avait plus personne. merci nous l'avons perdu de ñàkk nañ si suñu bakkan ñàkk si suñuy suñuy suñuy suñuy suñuy bët suñuy tànk suñuy deret tëj nañ si suñuy nit mais ce qui sont en prison continuent à nous encourager. chaque jour soo ko si seeti. ni nga koy fekkee sax l'historitisme qui les habite da nga naan da nga naan. merci